benn waxtu toftal euh, juróomi simili ci télévision Futur Média dal leen jàmm ci xibaaru diggu njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaanee coow li juddu jamono ji euh, fi nga xamante ne mooy lompul foofe nag askan bi ñoo jóg rek ne ni ñuy euh, sayto wala ni ñuy jëfandikoo zircon bi entreprise yooyee rek ànduñ ci benn yoon ndax dina bokk ci li nga xamante ne. dina nasaxal seen diwaan ci jël lompul nag fàttali ne ci wàllu ko moom foofee dëkkuwaay bu am solo la ndax gannaaw géej gi tamit gàncax yi lu fa am solo lool ba tax ñuy woo kilifa yi ñu jël ay dogal rek aar askan ba ci li nga xamante ne mooy seen boobule moomeel dinañu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi. dem ba ca diwaanu siin foofee ca Fatick wala sax fi nga xamante ne mooy Mbafay nekk ci commune bu Fissel seetlu bi mooy xale yu jigéen ñi moom daanaka ñu bëri du ñu mën a wéyal seen njàng li ko waral nag ñu ci bëri bu ñu weesoo cm rek dañ leen di maye sëy loolu nag moo waral ñu def ab seetlu bi di sàkku tamit ci kilifa yi ñuy jël dogal ngir mën a gunge xale yu jigéen yooyu rek ñu mën a wéyal. seeni njàng dinañ wax ci lu aju ci coupe du monde bi eh, ni ngeen ko xamee rek talaata ji lañ fas yéene jongante suñu ñetteelu match suñu diggante ak waa Équateur la nar a doon mu doon match boo xamante ne daanaka final la ndax ku ci gagné rek di nga mën a wéyal sa compétition loolay waral ñu jox kàddu gi tey ki fi nekkoon entraîneur wala sélectionneur de l' équipe nationale di Amara Traoré moom nag indi na njàngat ci match yi nga xamante ne jot nañu romb. ak taxawaay bi nga xamante ne Sénégal noonu la war a taxawee ngir mën a jël ñetti poñ yi mbokk yi li mooy li gën a fës ci xibaar yi ngeen taaxirlu tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dalee na jàmm ci xibaar yi fii ci télévision Futur Média ni ñu ko waxee woon ci ponk yi ca diwaanu Lompul nekk foofu nag ca département bu Kébémer askan wi ñoo jóg rek di woote walu li ko waral nag dafa am ay entreprise yu fa nekk di wut li ñuy duppee zircon lool rek ñu gis na dina mën a yàq seen alam ba lépp lu aju ci seen koom-koom tàgga tembe loolu moo waral nag ñuy sàkk ci kilifa yi ñu jël yeneen xeetu dogal pour aar leen li nga xamante moom seen moomeel ñu koy jëfandikoo ñu mën ko euh, jël ni mu waree dañ ciy teewlu raportage bi ñu ci Thierno defar defal. fii ci Lompoul-sur-Mer koom-koom bi fi am amul fenn ci département bu Kébémer waaye tey jii lépp nar a naax saay te lenn waralu ko lu dul mine de zircon bi nga xamee ni si fas yeneen nañu ko samp ci diwaan gi. képp ku wax son ñaay di nga wax mbéy di nga wax napp di nga wax sàmm loolu nag si suwo da ko nar a faagagal ay investissement yoo xam ne investissement yu mag la comme lu demel nekkee centre de pêche bi trois milliards et quelques sous région bi yëpp fii la ñëw di fi liggéey bu ñu taxawaatee ñu ne dañuy tere mbay dañuy dagg suñu tali dañu ne ñun ñoo ne ñoo bañ ci geneen wàll waa Lompoul dina xarlu bu baax yenn ci jumtuwaay yi nga xamee ni si nee nañu GCO daf ko fas yéene faagaagal muy seen poste de santé bi CM bi rawatina tali bi nga xamee ni si ci la ñuy jaarale seen produit yi di ko jaayi feneen ñu ba am suñu ONG ba tabaxal ñu suñu hôpital ñu bëgg koo falax-falaxee ci benn bés ñu delluwaat ci li ñu nekkoon mooy jigéen ñi bëgg a duggaat oto di dem ba 34 kilomètres de faju ji loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg sem am na dëkk boo xam 15 22 kilomètres la fii foofu fi amaat sem à part fii te xoola élèves yi fii la ñuy jàng see waaye léegi seen boobu bu ñu ñëwee rajaxe ko après élèves yi fan lañ jëm wala ñun lompul bu benn avenir après parce que déviation rek kenn waru ci dagg tali bu dugg ci biir dëkk en tant que tali boo xam ne dañ cee investir ay milliards ay milliards au pays fekk fa ay projet de milliards. jafe-jafe yooyu yëpp ñu leen nar a teg nag moom moo tax ba waa Lompul génnati di yuuxu wallu. loolu lu ñu nakkari la ñu ngi leen koy jooytu ci état bi ak ci sëriñ yi ak ci population Sénégal yëpp mooy suñu nakkar sësu woon nañu béy tout tranquillement tere wuñu ko liggéey li muy liggéey sircom baa ngi si beeñ bi na dem ci beeñ bi mu béy ci lu moom ci fàttali lompul dafa bokk ci gox yi nga xamee ni si seen suuf nguurug Sénégal da ko jébbal tubaab yi ngir ñu gas fi zircon bi te ñaareelu phase bi ñu war koo tàmbali ci diwaan gi ci lu yàggul dara. Cerno Fall bu ñu jógee lompul dañuy dellu ci fii ci Ndakaaru dem ba ca banlieue bi foofu nag soxna yi nekk ci Union démocratique de travailleurs du Sénégal ñu gën leen xam ci UDTS ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñu taxaw lu baax a baax ci lépp lu aju ci wàllu xeetu xoqotal yi ñuy nemmeeku ci bérébu liggéeykaay yi ndax euh, bu ñu sukkandikoo nag ci convention numéro 190 bu organisation internationale du travail ñu ne nag am na ci loo xamante ne réewu Sénégal dootu nag xaatim ci boobu la fan waaye ba nag nii nag dañu seetlu ne defee nañ ko jëfee ni mu waree ci loolu sax dañuy teewlu soxna Khady yi mooy présidente comité national des femmes bokk ci IDTS ci micro Abdoulaye Anne. ñoom jafe-jafe bi ñu njëkk am nag mooy violence bi ñuy tuddee économique maanaam ci wàllu koom ndax loolu li ko gën a indi mooy pandémie Covid 19. xam nga bu fekkee ne da ngay dem lebi war a fay capital teg ci intérêt donc yaa ngi wuti crédit mais est-ce que investissement ba ngay def dina rentable aussi yaa ngi dégg donc loolu lépp dafay diis ci ñoom moo tax ñu war a am ay crédit solidaire yu nga xam ne daf leen di relancer jàppale leen ci fànn yëpp nag góor ñi lu ñu def rek ñun xeebuñu ko ndax bu dee pour jug jàppale jigéen ñi la violence jeex yaay yi seen xel dal mën a xool xale yi bu baax mën a tamit def seen liggéey ni mu waree ñëw parce que ñoom lu ñu indi rek ci kër gi lañ la jëm xam nga convention 190 bu OIT convention la boo xam ne day xeex violence ak harcèlement boobu convention day xeex violence ak harcèlement ci bërëbu liggéeykaay te bu ñu nee bërëbu liggéeykaay góor jigéen ñoo fa tase kiy joxe liggéey ak gouvernement yi bu ñu àndoo mànkoo ne lii daf fi war a jugee xaatim kayit muy convention 590 ñu ne ko adopté nañ ko ñoom ba ñu ñibbisee rek dañoo waroon teg ay jéego pour ratifier ko te boo ko ratifier tamit da ngay fexe nga appliquer ko ci sa législation interne mais loolu tant que ratifier wuñ ko ba teg niñ koy appliquer yooyu yëpp mënuñ ko mënuñ ko def wax ci njàng meek njàngale mi dem ba ca diwaanu Mbaafay nekk ci euh, commune bu Fissel foofu nag dañu seetlu ne xale yu jigéen ñu bëri dañuy jóge ci lekkool yi maanaam bàyyi jàng gannaaw rek bu ñu amee CM2 boo ko doon xayma téeméer boo jël daanaka ñeent fukki moom du ñu yeggale seen njàng ba yegg collège li ko waral nag ñu bëri ci ñoom dañ leen di euh, maye ñu sey lool nag la kilifa yi bëgg a jële may tamit soxna yooyee ñi nga xamante ne war nañ mën a dugal seeni loxo ci liy suqali réew mi ñëw woyal seen i njàng bi ci kanam moo waral suñuy ndaw doxantu woon fa ndey Mati Dieng àndoon na fàkk ak Mamadou Gueye teel a maye gone yu jigéen yi sëy nekk na mbir moo xamante ne bari na lool fii ci village bu Mbafey lu ni mel nag moo waral ba ki ñu dénk sem bu xaw lu xawlu Mbafey di ñaan ci wayjur yi ñu daal di ci bàyyi xel ma ngi ko xamle ca ba ñuy dalloo ay l'école yoo xamante ne ay partenaires belge ñoo leen ko tabaxal. gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu may sa ay salle de classe may ñu bloc administratif may ñu ay bloc de toilette ay gan yu jóge Allemagne may ñu lu toll ni presque euh, presque 74 millions ñu def ko ci suñu CM bi. pour xale yi mun a nekk dans de très bon conditions pour mun a jàng mais li ñuy lancer aux parents mooy la message que ñuy lancer parent yi mooy fi ñu toll nii xale yu jigéen ñu bëri dañ nee naa maye sëy maye sëy boo xam ne xale bi yaram sax du matagul ñu maye ko sëy te sëy mënut a ànd ak jàng. Massassou Ngom di ko dëggal. dinañ dem ci école yi sensibiliser xale sensibiliser xale yi dinañ toogak ak seen i parents itam saa yu ñu defee assemblée générale dinañ gën a waxtaan ak parent yi. mairie bi ne dina def kéem kàttanam ngir daal di dakkal moomee mbir. dangay gis ne jigéen ñi dañuy nekk ci classe mais balaa ngay egg ci yeneen niveau da ngay gis ñu commencé di bàyyi jàng. loolu noonu nag euh, yaakaar naa ne euh, autorité administrative yi ak autorité politique yëpp ñoo war a boole seen doole. xam ne am na loo xam ne yoon loola loolu la wax sur la scolarité des enfants mais surtout ci côté jigéen yi nga xam ne moom moo gën a nekk suñu indicateur kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bu Fessel rawatina ak ci village bu Mbafey ne dinañ ci xar seen tànk tubéy ba jigéen ñi daal di des ci lekkool yi ci noonee sax ñuy sàkku ci kilifa yi leen féete kaw ñu daal di leen di dolli l'école nga xamante ne dañ ko rafle lool Ndeye Mati Dieng buñ fa bàyyeekoo dañuy wax ci yeneen soxna yu féete ci diwaan yi di Daara Bulal Thiamène ak Sagata ñooñ nag dañ leen di tàggat ci lépp loo xamante ne mën na yokk seen xarañte ñoom ñooñee nga xamante ne ay conseillers municipaux lañu ñoom dinañ liggéey ci li nga xamante ne rek. moo ajjure ci liy suqali gox yee gox goxaan yi loolu nag moo waral rek euh, fondation bi di Konrad Adenauer euh, lëkkaloo ak association des juristes sénégalaises ñu dem baaxe leen ay xeetu tàggatu ngir ñu mën a xam seeni wareef dañ ci teewlu Xaddi euh, Diatou kebe Diouf moom juriste la ñu teewlu ko ci micro Mamadou Moustapha Ndiaye. association des juristes sénégalaises ba mu juddoo ba léegi ci loolu la yëngatu maanaam. fexe ba ñëpp jot ci àq ak yelleef yi xam ko ñu promouvoir ko mais itam ci biir loolu la ñu am relation ak fondation bi ñuy wax Konrad Adenauer ci moom lañ moom moo ñu accompagner pour formation yi nga xam ne moom la ñëw def si fii ci commune Boulel Sagata Thiamène ak Daara Jolof ñu mën ko def pour gën a taxawal jigéen ñi maanaam am xam-xam xam lan mooy leadership ku ko nekkul woon jéem koo nekk xam lan mooy parité ban dégg-dégg lañ ci am xam lan mooy gestion des collectivités locale nan lañ ci war a taxawee xam lan mooy gestion inclusive maanaam booy gérer nga boole ñëpp boole xale yi boole handicapé yi boole mag ñi boole ndaw yi soo ko deful sa gox du ma a jëm kanam. naam am nañu taxawaay moo leen indi fii waaye ñu gën a am taxawaay gën a am leadership. maanaam taxaw gu mat sëkk taxawaay bu mat sëkk nag pour nga mën ko am il faut nga am xam-xam. ba léegi amaguñu parité à 100 pour cent li tax benn exemple rek laa ciy joxe mooy maire daara bi ñu nekk nii le pré le, le maire de Daara est nom mais le premier adjoint au maire est un kon parité loolu rek wane na ni parité amul fépp te itam loolu ñun ags ñoo ngir jàngal nit ñi les voies de recours. del si wax ci xabaar yi nga xamante ne kuréelu bii di SOCODEV ñoo ko fësal mu aju rek ci lu ñu duppee cantine scolaire daanaka nee nañ lu toll ci juróom-ñett fukki cantines yoo yoo xamante ne waa aide publique au développement ñoo ko fësal leneen liñ ci toftal nag mooy beneen constat bi ñu def rekk ci ay jafe-jafe yi nga xamante ne dinañ ko nemmeeku ngir mën a saytu ana ñan ñoo yellool li nga xamante ne mooy bourse de sécurité familiale loolu waral ñu amaloon ci ab lël maanaam liñ ci sukkandiku rek mooy fexe ba xibaar yooyu gën a yemb seeni euh, bopp dañ ci lu Amadou Kanouté moom moom nga xamante moo jiite SYCODEV ci micro di Sabre la dañoo gis ne itam cantine scolaire lu ci bëri pour que mu dox bitim réew ñoo koy financé ñu ne nag nañu fexe recommandation bi génn fii tegtal bi génn fii mooy nañu fexe état bi surtout que ñu ngi dugg ci li ñuy wax année sociale état bi daal jël xaalis bu bëri ko ci kopparu réew mi daal di koy dugal ci biir cantine scolaire ci wàllu wér-gu-yaram CMU li ñu gis mooy ne ak ah, couverture bi tey chiffre officiel yi cinquante trois pour mais ba léegi des na loolu des na gis nañ ni dafay baax ñu daal di commencer xalaat ci yan anam la ñu mën a fexe ba yokk loola. bourse de sécurité familiale yi étude bi li mu wone mooy doonte lu baax la étude bi def ay recommandations ci naka lañ mën a fexe ba ciblage boobu maanaam ki ko yelloo jot ko naka lañ mën a def ba loolu mën a ne. ñu dem Saalum foofee ca Kaolack ndongo yi nga xamante ne wala sax ay ndongo lañ fa woon euh, di association bi nga xamante ne ay anciens élèves yu école Ndorong euh, Kaolack bi nga xamante ne foofee la ñu ba ñoom nag ñoo fa delluwoon rek ngir li ñu am ñu dajale ko. taxawu lekkool boobu nga xamante ne fu ñu toll tey bokk na ci leen ka may ngir euh, tabaxaat ko xool nekkin bi li ñuy sàkku tamit ci ñeneen élèves yi nga xam ne jot nañ fa jaar ku ci ne nga def seen kamtalay kàttan ngir ñu mën a jàppale jàngalekat yi ngir fexe tamit benn tuutànk yi nekk ci ay anam yu mucc ay dañ ci teewlu liggéey bi ci Ousmane Deme amal àndoon ceeg Fally Gueye ci diggante 1958 1959 lañ tabax école Mansour Ba ay génération yu bëri ñoo fi jaar. ñun nag dañoo jànge ci école bi ñun ñoo fi njëkk a jànge 1958 1959. am na ñeneen ñu nekk fii ñun ñoo bokkoon ay promotion fii. dox si ay soxlawu école bi mooy di yitteelu kuréelu ancien ndongo yi. classe bii nekk suñu ginnaaw moom lañ ko tëjoon abri provisoire bi den ak moom fii la élèves daan jànge parce que kenn mënutu woon a jànge ndax toiture amatu fi woon lépp yàqu woon ñu daal di décider ne kon ñun kon ñun ancien élève war nañ ko defaraat. association bi am yéene gën a soppi xar kanamu école Mansour Ba. suñu yéene nag mooy def école bi école bi gën ci Kaolack école bi gën a dund ci Kaolack école bi gën a rafet ci Kaolack. école bu ëpp ay résultat ci Kaolack. lii war naa ñaax ku ne bugg ngi sukkandikoo ci direction bi. ndax euh, jàngalekat bi li ma wax sànq sama discours amul benn neexal benn récompense bu ëpp reconnaissance ay élèves am parce que ñun xaaruñ ci élève yi ñu ñëw jox ñu xaaruñ ci ñu fay ñu mais liñ ciy xaar rek mooy xale bi réussir am reconnaissance ba dellu siwaat ci école bi. def la nga xamante ne moom la ko école bi jàngaloon mu delloo école bi njukkal te ñoom lii ñu def nii ci cadre boobu la nekk te dina permettre élèves ñu xam ne ñoom aussi dañoo war a jàng ba ëllëg si biir seeni doom ak seeni rakk yi fi nekk dañoo war a dellu siwaat pour jàppale leen. ndongo yi fa jàngee di ko rafetlu bu baax. maa ngi gis sama bopp si ñoom parce que maa ngi bëgg a mel ni ñoom peut-être instant yi CM2 laay def mais su ma màggee bëgg naa mel ni ñoom ñëw fii tamit pour defaraat Mouhamadou Mansour Ba. kuréelu ndongo yi doon jànge ci école Mansour Ba liñ bëgg mooy yeesal salle de classe yépp Ousmane Deme bu ñu bàyyeekoo Saalum dañuy wutali Bawol foofee ca Diourbel nag chambre de commerce moo jëloon bi lee dogal maanaam tàggat soxna yi ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu euh, salon euh, technique de coiffure ci yenn département yi féete ci boobu la région liñ ci jublu rek mooy fexe ba yokk leen xam-xam bu ko defee li ñuy euh, liggéey ñu mën ci gis seen bopp bu baax a baax Babacar ju ak Ndongo Ndiaye amaloon nañ fa ab doxub nemmeeku. ñu toll ci juróom benn fukki jigéen yu ñuy tànn ci ñetti département yi nekk ci région bu Diourbel defal leen formation bu nga xam ne dina leen mën a may ñu defar bopp jigéen ak bu góor. rawatina nag ci wàllu coiffure rawatina tey coiffure dem na ba insérer nañ ci tey soin esthétique. Euh, traitement de cheveux loolu yëpp mu ngi ci biir boole génneel leen ci ay lijaasa yoo xam ne muy CAP coiffure lu ñu yàgg bëgg di ko yàgg ut te loolu yëpp mu ngi ci biir kon nañ gëm seen bopp. te xam ne. initiative bi tukkee ci chambre de commerce bu Diourbel bi introduire benn demande de financement ci 3FPT ñi nga xam ne ñoom lañ jot tànn nag war na noo jàpp formation bi nga xam ne. xayma bu gàtt xaalis bi nga xam ne génnee ne ko pour former cent coiffeuses yi Kaolack Diourbel Bambey Mbacké tourné na si à peu près ay fukki millions yi nga xam ne véritablement investir ne ko. si matériel investir nekku tam si xam-xam pour que véritablement coiffeurs yi nekk fii nekk de futur chef d'entreprise. ñi nga xam ne ñoo am chance bokk ci formation bi war nañ koo fulaal def ci seen kéemtalaay kattan. digal mooy ñu gën a góorgóorlu gëm seen bopp parce que métier bi métier noble la te xam-xam bi nekk na loo xamante ni tey ñun ñoo ko war a téye defar ko. ba nga xamante ni ëllëg suñuy sët suñuy doom dañ ciy jariñu parce que métier bi dafa nekk métier boo xam ne métier noble la. cérémonie de remise d'attestation bi amoon ci chambre de commerce bu Diourbel foofa def nañ fa ay séance de démonstration. Babacar Diouf dañuy wutali Qatar foofee nag Sénégal am match bu am solo mu nar a dox digganteem ak réewu Équateur mu yemook ñetteelu sortie yu gaynde yu Sénégal ñu ne nag dañ ci war a am ndam ngir wéyal compétition bi moo waral jamono ji nag gaynde yaa ngi tàggatu ci loole nag am na ci koo xamante ne xamoon nañ ko ci boppu équipe nationale ci ay jamono di Amara Traoré moom ñëwaat na ci li nga xam ne gaynde yi jot nañ ko def bi léegi ñëwaat na itam ci beneen gaynde yu Sénégal war a taxawe rek ngir jël wala am victoire ñu teewlu ay kàddoom ci micro suñuy correspondant Mamadou Ndiaye àndoon ceeg Ameth Niang. première occasion mooy ci wàllu compte du jeu ci jeu bu baax jeu bu baax équipe yi wane ne contre Pays-Bas bi ñu xoolee euh, Pays-Bas na jeu bu baax euh, euh, boo ñëwoon ci équipe boo ñëwoon foofu doo xam ne sax équipe bi équipe bi ñu moo supposé fort tellement que équipe bi joué na baax maintenant match bi di ñëw mooy troisième match bi. Euh, donc euh, équation répondre répondre nañu équation moo bu boo xam ni mooy génn nañu baax mooy football bu rafet beneen bi mooy résultat wane nañu ko léegi benn bi bi ci des mooy parce que booy football match match match match poule yi nga xam ni trois matchs la il faut que mën a répondre ñetti équation yëpp dernière équation mooy ñu euh, football lu rafet ak gagné mooy mooy mooy mooy mooy troisième mooy troisième kii bi bi ñu war répondre te troisième boobu comme premier match bi def nañu bii deuxième match bi def bii troisième match bi war nañu mën a def loolu war nañu mën def lool parce que eh, mais nag lu jafe la parce que xam nga boo boo amee euh, pression résultat boo xam ne da ngay gagné pour nga ñibbi kooku benn benn benn benn approche match la mais je pense que mu ñu fàtte ni football pour nga pour nga gagné il faut nga am au nga jéem a football football baax parce que boo loolu boo gën a wóor que nga football bon parce que football euh, mën nga gagné c'est rare et donc comme que équipe woon na ñaari façon yëpp man am naa yaakaar ci que ni équipe bi. Euh, suñu équipe contre Équateur dara taxaw. kooku di Amara Traoré nekkoon fii tamit ci ay jamono entraîneur est euh, bu équipe nationale de football dañuy desandi ak football waaye bi dañuy dem ba ci diwaanu Linguère ci fàttali nag foofee lañ doon amal final départemental bu Linguère mu doxoon diggante ASC Dandeléniol ak bu bu Daara ak ASC Guney Baaxal bu Sagata Jolof ci loolee nag la ci kilifa yi sukkandiku ci xew-xew bi doon amal ci stade municipal. municipal bu Thiamène Pass Pass ngir woo xale yi ci lépp lu aju ci wàllu fitna ñu sori leneen li ñuy sàkku tamit mooy fexe ba wutal leen ay bërëb yoo xam ne dañ fa mën a tàggatu ba euh, ñu fës wala seen tur fës lool ci football mën na fa génnee Mamadou Moustapha Ndiaye moo ñu toogal ci diwaan ba. dañuy final départemental bu Linguère amal nañ ko ca stade municipal bu Thiamène Pass. njiital ODCAV ba di sàkku ci kilifa yi ñu taxawu ndaw ñi jaaree ko ci tabax ay jumtuwaay yu yees. mais gëm naa ne aussi jeunesse Jolof war nañoo dépassé foofu tey parce que football moo toll foofu tey tey boo demee si yeneen dëkk yi nit ñi si terrain la ñu fubal pelouse la ñuy fubalee ay projecteur la ñuy fubale parce que Jolof dafa tàng 14 heures léeg-léeg fii booy fubal match ci première heure vraiment ak dee la. gëm naa ne jeunesse Jolof aussi war nañoo am war nañoo am projecteur parce que loolu moo ñuy gàllankoor ba léeg-léeg bu ñu demee phase régionale dañuy humilier à Louga gëm naa ne Jolof war nañoo am loolu. président conseil d' bu sirn di maître Amadou Ka fas yéene taxawu ndaw ñi mu lancé fa sax concept bii di zéro violence. maa ngi ñaax ñu ñu ñu ñu ci dans la sportivité ñu bàyyi violence bi violence bi baaxul gis ngeen lu xew daara keroog man maa ngi ñaan yàlla yu loolu loolu bañ ñëwaat ci biir département Linguère et dans le Sénégal parce que soo nekkee responsable politique nga nekk sa gox da war a gëstu jigéen yi. gëstu xale yi je pense que depuis qu'on est au conseil départemental on est en train de faire de notre mieux. collectivité territoriale yi dañoo war a jàppale euh, jeunesse bi jàppale sport bi euh, mais il faut il faut il faut aussi ñu xam ne ne bari wuñ moyen mais y des y a de bonnes perspectives. kon ñu dooleel collectivité territoriale pour que ñu mën a toppatoo seen jeunesse. ak seen jigéen yi. finaal bi doxoon diggante Dande ñool bu daara ak goney baxal bu sagata jolof parrain bi def na ci lu tolloog ñetti millions ngir neexal équipe yi doon jongante. Mamadou Moustapha Ndiaye cant ak ngërëm ñeel la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.